ahousubillahi mina seytaani rajim yi bismillahi rahmaani rahim yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw ben sant yàlla julli ci yonantaam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nekk ñoo leen di jaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawati fii ci daaru salaam si leen di jaar bu baax fooy mën nekk rek ñoo leen ñaanal jàmm di ko sàkku ñu ñëw yéen nag di leen mm, wax nag at mu bees mi muy 2024 yàlla yàlla def jàmm ak sutura ak teraanga ju bari nag ku ci wér yàlla nga wér ku ci ñàkk tamit yàlla na suñ borom defal xéwal yaatu nga am kon ñu ñëw yéen ci seen sóoratul wàqiya sirru sóoratul wàqiya nag bari na ay yoon bari na ay njariñ sóoratul wàqiya nag lu cëpp moom xéewal la suratul waqia moom dong lañu fi bàyyi ne bu ngeen ko dee jàng mën ngeen wërsëg moo tax bari na am ay yoon nag yu baree bari wante daal képp ku koy jàng ñetti yoon bala ngaa tëdd lu mu yàgg-yàgg suñu borom dina wërsëgal man ngaa baje ñàkk kooku moom mag ñee ko fi bàyyi kuy jàng suratul waqia bala ngaa tëdd ñetti yoon suñ borom daan la jox xéewal ak wërsëg suratul wàqee nag bu la neexee diggante aay bu nekk da koy bind diggante aay bu nekk da nga koy bind nga dugal fa wa jaxaltu lahu maalan mamdudan wa jaxaltu lahu maalan mamdudan loolu mooy defal nañ ko alal joo xamante ni amul am yemuwaay baat bi loolu lay jàpp loolu lay tekki wa jaxaltu lahu maalan mamduudan jàppandal na lañ ko alal joo xam amul ab yem waay kon diggante suratu wàq diggante aaya bu nekk nga bi dugal fa aaya bu mu wax wa jaxaltu lahu maalan mamduudan ba suratul jeex nga di ko sangoo képp ku bëgg am ko dee def mën ngaa am képp ku tamit boo ko defee da nga ko waaye yaa ngi fay dugal nag baat aaya bu mu wax wa jaxaltu lahu bi ci toppaat yow it bu la neexee nga dugal ci diggante aaya bu nekk wa rafanaahu makaanan aliyan diggante aaya bu nekk nga dugal fa loola kooku tamit boo koy sangoo nag bëgg nañ ci tamit nga koy sangoo ci kaw terrasse wala étage wala nga tegal ay mool nga taxaw ca la am nga sangoo ko bu ay mool nga am nga nga sangu ca nga taxaw ca kooku tamit ku jëm kaw rek mooy war a fandaaw makaanan waaye diggante aaya bu nekk na nga ko dugal boo bind sootul wàq aaya boo bind dugal fa aaya boobu wa rafa'nahum maqaana leen bi ci toppaat tamit am na yoon wi bu la neexee booy bind suratul waqi'a diggante aaya bu nekk nga dugal ci aaya bi inna haza la risquna ma lahu min nafadin aaya boobu tamit boo ko dee dugal boo koy bindee noonu suratul waqi'a gi diggante bu nekk nga dugal bu ma wax muy inna haza la min nafadin ba suratul waqi'a jeex nga di ko sangoo di nga ubbeeku suñu borom tamit daan la jox ay xéewal ak wërsëg waaye bépp boo ci def ba pare nag mën nga caa boole sungufu waswasoor ak sungufu bérëwél ngel ngel ak waswasoor bérëwél ngel mooy timiñ timiñ rek baat bi la bérëwél ak waswasoor nga cee boole bépp boo bépp boo jël mën nga caa boole sungu ñaari sunguf yooyu am na ñoo xam tamit dañuy bind suratul waqia juróom-ñaari yoon saa boo xëyee nga sangoo benn ba juróom-ñaari fan yi mat kooku tamit lu baax la ci ubbi doomu aadama waaye moom doo ci dugal dara noonu dañ koy bind nag am ñoo xam sax dañ ko bind ci àll saa bu ñu xëyee raxas ko ba mu set sangoo ko kooku tamit loolu tëju tëju boo ko def da nga suñ borom tamit daan la jox ay xéewal yaatu moom suratul waqia daal lépp am xéewal la ay njëriñ la tamit lu jëm tamit ci wàllu wërsëg rek la ubbeeku waqia ngoogu kon boo ko bindee dugal ca inna haasa la risquna maa lahu min nafaadin ko sangoo boole ca waswasoor ak bëriwél ngel suñ borom daan la def lu wërsëg bu yaatu boo bindee sootul wàqe diggante ay bu nekk nga def jugal ca war a faanaahu makaan na aliyan boole ca waswasoor ak bëriwél ngel nga di ko sangoo fu kawen nga koy sangoo boobu suñ borom dina la yëkkati ci kaw yow mi bind sootul wàqe diggante ay bu nekk nga dugal fa wa jaxaltulhu maalan mamduudan suñ borom dina la xéwal wërsëg bu yaatu ba mbàgg ci alal kon sootul wàqe ngoogu muy lu bari njariñ sëñ Cheikh kon mi ngi noonu ci waat mu bees mi nag loolu lañ leen ci njëkk a ubbil ci 2024 bi di ñaan nag muy nekk atum naataange atum barke atum xéewal fu waaye mën a nekk rek nga gis ci sa bopp nag waaw loolu rek moo am solo ci àdduna àdduna moom nit ki moom daa war a wér daa war a am natt nag mënta ñàkk waaye tamit boo amee tamit jiimal rek boo ñëwee suñu borom dana defal natt yooyu yëpp teggeeku nag kon wàqee googu lépp wërsëg la te jamono ji léegi nag jamonoy am la te jamonoy ñàkk te jamonoy am la ko am ñu boole li ci lépp loo mën def rek waaye boo amul tamit nit ñi dañ lay seetaan te ñëpp nag mënuñu amandoo waaye daal kenn ku ne fexeel ba am looy tedde ak sa njaboot ak sa surtout am sutur daal kon loolu lañ ci jublu ñëw ngi leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkku yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu